salaamaaleykum kon Serigne Ndiaga ni doon laaj nan la Cheikh Ibra doon korité maam Sara doon nu mu doon dundee korité moom moom ay doom ñoo ko fa wutu woon te mosuñoo teggi seen tànk fi ñu ko tegoon loo gisoon ñuy def rek ci doomam di ko def rek xamal na loolu la maam Cheikh doon te dama fekk korité boo xam ne njaarim la woon nga ànd ak si ak mbooloo mu bari sëñ bi dugg ci oto bi ñun ñu topp ci di daw mm. ba ñu àggee Serigne Assane moo doon xalifa mm. keroog Baye Cheikh Ndaw nga fa sëñ Modou Aminta mu baax mu sell nii moo doon jottali sëñ Assane ba ñu jullee ñaar rakk yi ba noppi sëñ Assane daal ne sëñ Modou Aminta jógal nga jottali ma ngi digg ci sama nopp bii sëñ Modou Aminta naan na ngeen góorgóorlu baax sama Baye Assane nee na nii la doon wax sama Baye Assane nee na korite gi koor gi def ngeen ko ni ngeen ko war a defee sant na leen waaye tabaski yaa ngi ñëw na ngeen ci góorgóorlu lii ci làmmiñ suñu mu dëggante laa ko déggee de ñëpp ngi toog mu ne ndax sama baay Assane nee na kuy def lu baax ci la nga gën a baax la nga koy def bi mu waxee loolu rek bàyyi seen daal jóg taxaw daan ne mu dëggante kër ñëpp a tiit suñ mu dëggante naa ah, bàyyi seen daal am na lu mu bëgg a wax sëñ Assane ngi toog sëñ Cheikhal Baye góor ngi toog kilifa ñëpp a ngi toog seex yi Baye Fall ñu ci bari boobu jamono ñu ngi sant boo jëg ñëpp ngi toog mu daal di ne ak waa kër euh, Baye euh, Baye kii Ousseynou euh, mu tuddati waa kër Ousseynou mën jaay ñaay yi ñëpp nga fa nga xam ne kilifa Baye Fall yu bëree ngi toog ak seex yi suñu Sërif Asana ngi toog mu ne ko dama bëgg dama am taalibe bi julli di woor di natt asak mhm. sëñ asan mais am ko yéen ñi ñëpp am ngeen ma bëgg wax nag lu ma Seex Ibra waxoon Seex Ibra moo ma ne cheikh ma ne ko Fall ma na bu ma kenn fenn new ma kenn bu mu julli bu mu yàllaa ma woo bu mu wuyu ko mu ne ma amee lu ma la bor jullee koor yaa ko àndal billaahi bàyyi seex ko kanam seex kanam seex mhm. bu ngeen ko defee duma leen fay ne ma bankal sa baaram ma bank sama baaram mu ne ma liggéeyee gën jàng joxee gën julli mandoo gën koor bi mu ne liggéeyee gën jàng joxee gën julli la benn way ne ma di gën dem loolu la waa ji wax daal di dal ci poudre bi ba nga xam ne kii bi da doon yëngu ah bi kenn mënut a téye kenn maanaam loolu kenn mësu ko <laughs> sëñ Xasan daal di jóg bàyyi seex naan ana ki dagg sama wax ci ma def noonu bu yow boo bëggut a déglu samay wax déglu ma ma àggale man ñetteel bi déggu ma liggéey gën jàng joxe gën julli laa dégg ma bàyyi ba mu jeex ma dem kër bàyyi ne ko ñetteel bi laa bëgg a dégg mu ne ma kooku daan woon dinaa daal di jaar foo xam ne fii <laughs> bu soxlawu saa wax man ma wax ak man njege Cheikh Ibrahima ko wax ne ma ñetteel bi mooy mandoo gën koor daa koy limal liggéey gën jàng gën julli mandoo gën koor nga xam ne noonu ko sëñ Assane defee woon Baye Fall bis la bu ñuy daje ñoom ñëpp korite ak ak ñu joxe ndigal joxe ngërëm yi wax liggéey yi ñu sant mm-hmm. ñaanalante gisante dem ba déwén. kon ñun korité bu korité bu daanoo rek. Mhm. day mel ni yeesluwaat ay ndigal yu ñu war a dëpp. waaw ci la ñu daan waxee ndigal yëpp. Mhm. waaw suñu asan dégg li mu wax. Mhm. daal ne koor gi def ngeen ko li ngeen ko war a defee ci lam yi suñ mu demin waaye koy tabaski jaa jàngi ñëw waaye kuy def lu baax ci la nga gën a baax la sama baay asan ne can koy def na ngeen ci góorgóorlu waaw nga xam ne ndigal yooyu kero ñi ko seere xëy na dina am ñu dégg bande bi nii. keroog laa mës a gis oto bu ñu yëkkati. nga xam ne ci yoonu murit dama ko daa dégg. ñu mm-hmm. Cheikh Fall dugg ci oto Serigne Assane dugg ci ñu yëkkati benn waaye na na oto bi jóg. keroog tiit naa dama ne oto bi moom bu rëccee ñëppay dee. Ah. barke sëñ Touba ñu jàllale oto bi nii sama kanam. Eh. ba teg ko fële si sëñ Assane a ngi ci ak sëñ Cheikh Fall. Eh. njaareem la woon xanaa booy bis bu ngeen kii dana am ñu ko dégg ñu ko fekk. waaw. keroog laa gis oto bu ñu yëkkati mu tiim ñu di ko joxalante ñu oto. allah akbar. kenn <laughs> du ñëw. waaw mu ngoog bañ dem bañ demee ba kër Sëñ Assane ñu lal si sa sa dënk yi. Mhm. sëñ Cheikh Fall euh, lëng ko nii. lëng Cheikh Chérif. Chérif Assane loolu bu amoon caméra nga xam lëng ko nii boobu Sëñ Assane dox baa ngi tàmbalee diis Sëñ di jaar ci kaw kii sikkar si nit ñi soroxoon ne këram. <laughs> ba sëñ yóbbu ko ba ci fauteuil bi mu toog. <laughs> maa leen di séen nii ni ko sëñ Assane di joxoño nii daal di réer sëñ Cheikh Fall réer ba tëdd ci kawam hmm. da ndekete ndekete bi ñu génnee dama sëñ Cheikh Fall ni njege yàlla bëgg lu xorom man xaw ma lu sëñ bi def ba gis ma ndax bi ko sëñ Assane joxoñee nii mu kii ko ne damaa jooy nag fi ma toog ndax mosuma gis image boobu ndeysaan loolu kenn mënu ko dikk mos ko dikk wallaay wallaay léegi nekki sëñ bi gis na ne sama rangoñ génn te maa nga taxawoon sori ko hmm. mu ne ma njege yaa bëgg lu xorom ma ne ko foofu xam nga xool dafa sedd nag. walaay ndeysaan waaw dafa am ay seen yoo xam ne. njëriñ kenn musu ko bi. wallaahi sëñ Assane.